Life Ça va Ça va bien. Euh, voilà, c'est l'inspecteur D. de la police centrale. Je sais que j'étais juste de passage, hein. c'est juste une visite de courtoisie. Mm-hmm. de ñëw pour annoncer une mauvaise nouvelle Ramisa, elle est morte. <laughs> inspecteur Khamisa est décédé non Khamisa mënul inspecteur Khamisa elle n'a rien du tout elle n'était pas souffrante Khamisa moo ko mujjee gis yàggul non non non inspecteur de nga Khamisa n'est pas décédée. mais elle est rey Khamisa. monsieur Sec. bon jusque là dañu dit ni c'est une mort naturelle.

quoi, inspecteur, vraiment, man, cette nouvelle-là, je ne l'attendais pas du tout. Parce que Maïse, son mari, Maïse, mais il y a une situation atroce. le mec. Je connais mon Je fais partie de la famille. Je suis, man, je suis touché par cette, cette, cette, cette disparition. Mais Ramissa Boudéwe, non, mais Maïse, il est foutu. Non, mais inspecteur, qui vous fait qu'il y a des il faut que nous sachions qui Lima ma balai Wahat. laa lay natural c' est à dire mort naturelle nila. mais dama lay ni la am lu ci lendam ta loolu ci lendam man dina ko découvrir bon yow ya nak euh yaangi xalat may mais man xamisa yow la koy à la prochaine ok. je suis dans la merde. Qui n'a pas ko xamee ça war la confesser. je suis dans la merde je suis dans la merde. naka tey maa ngi am jàmm baax. tubarkaal tubarkaal nga xaw yàgg tuuti. waaw maa ngi jégalu xam ma li tax sax muy bëgg ñu daje fi. Mhm. mooy nit ñi dañ ma xam ci dëkk bi. Mhm. te bëgguma di ñëw ci sa kër ñu may gis foofu xam ne dañuy jëflante dama bëgg daal li ñuy def ñu def ko ci sutura maa ngi jégalu nag ci xaar bi. waaw lool loolu dëgg la amul solo ndaxte wax dëgg yàlla mbir moom bu ñoree rek daanaka itte lay doon. waaw li ma doon wax ci téléphone bi lan la. justement parce que xool say mbir. gis naa coow lu rëy mbooloo mu bari nit ñu nit ñu riir wuti ci yow ba ñu la jege ci la bopp li ma gis nag moo tax mu bëggoon jataay bi am sa jëb yi kasoo ngi ci de kaso ma coow li nag coow lu mu doon waaye boo jógul ci sa bopp li ma la wax dara du ko dindi coow lu riir lu jëm ci man coow lu mag ñu la gën a jege ñoo ngi si. waaw mais sëñ Modou loolu lan moo ci pexe. li ci pexe leen rek la xam nga ma yow xam naa la te yàgg na noo jëflante boo gisee bëgguma sax nga ñëw sama kër lii la defal ni nga daan def ma defal la la ma daan defal nit ñi coow li wan la ginnaaw dellu fu mu jóge woon siinoo di nga dugg ci kaso bi. waaye sëñ bi ay affaire kaso moom yooyu bàyyi ay kaso bu ko tudd sax man li ma bëgg mooy coow loolu dàqal ma ko quoi man li ma daan def xam nga dinaa la jox la ma la daan jox baam lu ko ëpp mais li ma bëgg mooy wax jooju dama bëgg ñu gas ko suul ku ci war a wax nga tëj lamina ci kàttanu yàlla boo defee li nga daan def def ko na nga daan defee ci kàttanu yàlla coow li dinaa ko wëlbati yóbbu ko ci àll ba. loolu du problème. man maa la gox bu ragal loolu. baax na ñu say loxo. jeex na. grand man dama lay jéggalu parce que xaw ma ne woon situation bi nii la demee Ali moo ma gëmloo ni ñëw nga Sénégal bu yàgg nekk ci lu la neex nekk ci ay jigéen mais grand naka ngay mën a nekkee Europe nga yónnee xaalis du ko jox Ali mais jox ko sama yaay ji. wala nga jox ma ko man mii sa rak je te dis une chose Alioune c'est pas ton ami Paco sama diggante ak Alioune dinaa ko gérer loolu du dara yaay ak lépp lu mënti di am yaay waroo woon jël ay xaalisu natt di ko duggal ci ay bâtiment ah yaay yaay imaginel condition yi ma ñëwee ci réew mi ñëwoon fi fekk fi maara day taali yaay bu boobaa nan laa koy dundee bu boobaa nan laa koy dundee yaay bor bi de sa papa rek la moom moo waral lii lépp ndax moo ni woon naa jël sept millions ci natt bi mu àggale ci kër gi te 7 millions yi bi ma ko jëlee def ko ci kër gi daf ko jël ni ci dëkk bi diko ko pasar def ko ci kër gi de ah. fi nak ku ne xam na ni fi ba ngeen juddoo ba tey plainte musu fee dugg gu leen tey te man duma jël yëfu jàmbur bëgguma yëfu jàmbur bëgguma lekk àq ah man sama santé yaram rek laa tal doy na ma yow it may sa woo nañ la ba sonn mënuñu laa jot Ken xamul ci lo nek ken déggu la fu mu toll ni li ñu li yépp mooy sa wér-gu-yaram dañu fexe lijjanti sa wér-gu-yaram rek li ci bor bi moom man lépp lu ma warloo ko yoon dem naa police gàkk naa ko ci sama dodd bi yow fu mu toll nii nañu jiital sa wér-gu-yaram rek waaw yow fu mu toll nii tanel bu baax a baax a baax a baax aar yow lan moo dox sa diggante ak dem kër xamisa jaale ji depuis muy décédé dégg naa dëkkoo dëggoo fa sa tànk te it woote woo fa sax. bon bëggoon naa sax ñu waxtaan mag yow parce que je sais que ni affaire bi mu ñëw ba léegi yow sax affecté na la parce que ku ne xam na ni xamisa c'était ta mère mais man personnellement. aw ma courage dem di xool Maysa naan ko maa ngi lay jaale Xamisa parce que Maysa ku ne xam na fi mu tolloon ci Xamisa te situation yi ko dal ni yow xam nga ko man xam naa ko lu ma ci mën yëpp nag def naa ko mais xoolal Xamisa li mu doon dund bi fi Maysa nekk mais yow à part devers toi daanaa jël sa sama alal di fa joxe mais méttit boobu ma dem di leen jaale dëgg yalla amu woon courage dem def ko du dara nak mais amaguma courage dem di len jaale quoi sérieusement. allez c'est pas une raison yow xam nga ne Maïssa est ton meilleur man khamissa était ma meilleure. te leer na nit bu amé nakar ñi mu gëna a bëggu ñu fi ñuy nekk ci wetam donc loolu du raison. man d'accord dégg naa la yow dafa am solo ma la bëggoon rek. oui. Amissa paraît-il laata muy décédé yow la mujjee waxal Amissa lu mu la wax. grand da dul mën a dem ci dëj bi. mais grand est-ce que tu nit nga sa soxna tok ci kër gi di la sëyal muñal la xamul ci la mais sa soxna nga sans gêne say mais grand est-ce que ça va mais ak nu mu même bo yorul dara yo da nga wara a a dem ci deej bobu nonou parce que ta femme elle ne mérite pas ça nek nga Europe ay at degoula gisoula fof dang fa wara a dem taxaw nga defal ko témoignage bu rafet mais man grand man ma la meunatul comprendre grand yo est ce que am nga xol yow man ma ngi soog a comprendre lan motax yow nga échec Xamisa non seulement waxtan nañu mais lu bari sax Xamisa waxna lo xamanteni man pend ci la baye gor depuis. xamisaa xamal na ma ni ko noonu li ma xamisaa xamal man sax néeguma koo wax ci kaw suuf man je préfère garder ko ba dee que mu génn sama làmmiñ xamisaa xamal na ma ni ko luy bon ci kaw suuf rekk góor la gën a bon Ali góor moo lëndëm góor moo sañ fekk ñaari xarit yu ànd mu dugg seen diggante góor moo sañ fekk góor bu bees tàq mu jël paaka di ko ci dem non góor moo bon mais loolu sax du objet débat bi dama bëgg nga dem jaale ji parce que sujet boobu lu ñuy waxaat lay doon mën ak yow.

nit ngi dañoo bari daju mhm. xale day bari nit macha allah xale yi dañoo jooy ba bëgg a dee. xale yi dañoo jooyee jooyee jooyee jooy kenn mënu leen a xool ndeysaan. wallaahi man de gisuma ñu bari sax. waaw gisuma ñu bari waaye nag sant yàlla rek. Mm, sant bu baax yàlla ma ko joxoon moo ko jëlaat. Mm-hmm. sant yàlla rek. ndeysaan yàlla baax na. sant yàlla de mooy kenn mm-hmm. yàlla yàlla de. moo tax dañu war a jaamu yàlla di wax lu baax. di def lu baax ndax mag day dem ndaw day dem. dëgg la te xamoo kañ la. xamoo fan la xamoo nu mu lay fekke yàlla ñu fekk rek ñuy def lu lu neex yàlla suñu boroom moo tax dañu war a dellusiwaat xel yi ci suñu boroom waaw loolu rek la daal moom ah metti na daal. àddina bi jeex na ba pare. Mhm. waaye nag lépp rek sant yàlla sant yàlla. nañ sant bu baax a baax a baax. Maysa moom jaale si na. Maysa xam naa li mu ñëwagul moo tax ñëwagul xam naa bu ñëwee dina fi é egg si. Maysa ki ma gis Maysa la de. Maysa fii. Maysa ngi Sénégal gi Maysa ñëw é na. baaxna penda te dama ñëwoon pour ñu waxtaan maysa mi ngi sénégal te ba mu ñëwee yàgg na te sa jëkkër moo ko ma wax la nag lan moo tax maysa ñëw sénégal di laaxatu di nëbbatu nit parce que dafa nekkon ci ay jafe-jafe en Europe ba procès fekk ko fa ñu refoulé ko mu ñibisi ba mu ñibisé mu daw ci sa jëkkër ndaxte umpule ne ay xaritu benn bakkan lañ di jotu nakar sa entreprise su jëkkër mooy ko financer de A à Z wow. ba mu ñibbisee di laaj pour pourcentage am sa jëkkër dëgg ci tànkam ne may sa am fi dara ma ñëwoon fii nag pour yow nga wax ak sa jëkkër ma lay laaj leen lan moo tax Maysa ak Ali ñëwuñ ci dëju xamisa te man ak yow ñu ngi fa woon pose-toi la question ci ay problème lañ ne damaa ñëwoon nag pour nga wax ak sa jëkkër. Paco vraiment man li nga wax nii man leerul sama bopp parce que leer na la ni Aly ak Maysa benn lañu dara doxul seen diggante donc comment se fait-il Aly ba taxawal entreprise ma tey nga toog fii nga toog ne ma Maysa moo moo ko financé man loolu jaaxal na ma. xamé ba légui dag ma xam ci ay wax yu ñak faayda wala ci ay fen lolo taxon mu ñëw wax ak yow man duma dox ci caaxaan te ump ni sama yaay nekkoon ni sa ay jafé jafé yu metti ba ni ni dafa teud feebar plainte fekk na ko kër ga mu amé amé lu bor 7 millions mooy sa daw ci sa jëkkër pour mu mën a fay bor boobu noonu sa jëkkër tëdd ci xaalis bi lenn nag laa lay xamal alal boobu noonu sa jëkkër yor du alalam weso it ñoo ngi lay masaw bu baax ndax xamisa suñu xamisa man mi bi ma ngi fàttaliku bi ma koy dox si war ko may may sa ñëw nga yombalal ñu yëpp ci farata ak diine lislaam yow sunu yaay nga dañ lay sant bu baax waaye maa ngi jéggalu nag ci li nga xamante ni sax gisoo ma ci dëj bi dara warul ko lu amoon kersa mhm deug yalla tek fi sama tank dila xol nakar wo mun mo la woon jàkkaarloog yow mukk diko dund ay fama togon deug yalla ba tay dem xamisaa mun mako gëm. dem na de fu ton ni de ñaan do nga ci des ay yalla baax na yàlla na ndax tamit. sant naa la gërëm naa la sant naa la gërëm naa la ndax yëg naa li nga def ci dëj bi yëpp nit ñi xiifuñu maruñu lépp loo xamante ni daal man mi maa ko waroon a def def nga ko maa ngi lay sant bu baax te la gërëm waaw dem na nag fu mu toll nii mënatuñoo jooy wala mënatuñoo wax lenn ba mu ñëw ñaan dong la soxla nañ ko ñaanal rek. waaw nañ ko ñaanal dañoo ci def dañoo war. amissage ñun ñoo ko war a taxaw loolu nag sama yaay nga bis ngi tey mën nga feral say rangoñ lu bëgg rek dinaa ci taxaw pour jooy dara pour bëgg dara loo amul te yëguma ko mun daal maa ngi fi tey te dinaa la taxaw bu baax entre ana waa kër ñëpp ngi ci jàmm ñëpp kañ nga ñëw. waaw maa ngi bëgg a yàgg nag bëgg a boobu ba léegi gisuma la. nga yor soxna mu gaañu. nga nekk ci dëkk bii ñëwoo fi woote woo ah te même bu dul dara sax waroon nga koo tiim sax ñaanal ko. yaay incha daañu waxtaan te bu ñu waxtaanoo rek juboo li nga def rafetlu ma ko de. bu di waxtane rek jubóo. li nga def te dara rafetu ci. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Diagne Diagne Diagne Diagne Diagne. Ndiol Sigil Ndigaale. Sigil sawal ah ni mom tiss la mom <coughs> mom tiss deug deug deug deug waye eh. sante yalla rek. sante yalla mhm, mhm. yalla ba sante yalla rek lan ma waxono tax ma ñew bu fekke mën nañu noo rek ñu ñu yegg ci biir ma wax la. mën nañ ko wax fi rek. Hmm? waaw amul problème ñu ni neen la. wa ki moy borom hmm, hmm ki moy borom kërëm ki xaritam la. Hmm. waaw ñooy ay jëkëram ñu ni neen la rek. ñu ko wax fi rek. bir ma dé sét na ko jañ waye ay loxo nga ci biir ndax xamisa dig bu gaaw bi nitu ko def. loxo. ah mas naa la wax lu amut. déedéet ah, lu leer laa la moom kan la tooñ. ak kan la defante moom demul fenn tooñu. kenn ji nit na danoo soxor. danoo soxor ku amul kaaraange rek ñu faat la. leen na dong nag laa lay xamal may ma ñetti guddi ma fanaanoo ko dinaa la wax ki ko rey.